asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko taw eh, di leen ñaanal jàmm ak tawféex di leen kontaane bu baax a baax tey ñu ngi fii ci asalem jaaji ci terrain bi nga xamante bi ci wala école bi nga xamante bi mooy école xaaxam eh, fekk si fi ki nga xamante bi mooy kenn ci ñun ñu gën koo xam Euh, ci Serif Alxaana Fall moom mi nga xamante ni wax dëgg yàlla dafa bëgg dëkk bi di yëngatu lu bëree bëri ci dëkk bi waaye tamit am am benn mouvement ba nga xamante bi mu ngi tudd mouvement dañ koy def ma ne dañ koy def nag dan incha allah rabi dañ ko ciy teg. kon duñ def rek lu di yëkkati kàddu gi jox ko ki nga xamante ni mooy Serif Alxaana mu nuyoog ñi nga xamante ni mooy ñuy se ñoo ñuy seetaan ci li nga xamante ni mooy sunu di internet bu mag bi di Global TV di Diourbel 24 Serif Alxaana ñu ngi lay nuyu. Ndiol maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñuy seetaan chaîne bu mag bi nga xam ne fierté la pour ñun waa Diourbel parce que bu ñu gisee doomu Diourbel mu yëngu ci dara vraiment dañ ci am xel mu rafet dañ ci am fierté tamit donc ñu ngi di ñaanal mu dem ba sut chaîne yëpp ñu dem tamit ba àdduna di ko seetaan donc ñu ngi nuyu njaareem di nuyu Sénégal di nuyu àdduna parce que xam ne nii ak seen euh, technologie bi jéggi na suñu ay frontières donc nuyu na ñëpp di la nuyu yow di la nuyu sa caméraman ak sa équipe technique yëpp jërëjëf euh, mooy nuyu ki nga xamante bi kenn la ci man muy Dibikor mu féete mooy ci côté bi ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di nuyu tamit Zal sama xarit sama doom day di ko kontaane bu baax a baax mais bala may dem ci ki nga xamante ni mooy Dibikor damay continuer ci ki nga xamante ni mooy Serif Alxaana mais Serif euh, ñu gis la ngay dox lu bëree bëri ci Jurbel te amaguloo benn ndombo tànk ba nga xamante bi mën nañ ci dut baaroom ne ndombo tànk bi moom la Serif yor ba tax na muy def acte yi nga xamante bi moom lay def ci Jurbel Serif lan moo waral loolu

loo mun si lu baax wala loo mënul sax da ko war a jéem pour delloo ko si dëkk bi loolu rek mooy suñu yitte loolu rek mooy mooy objectif suñu démarche donc euh, loolu moo tax lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ñu ak ñi ñu àndal yëpp parce que mouvement bi du man kese ñun jeune jeunesse bi yëpp la mhm. ñooy ànd xàccandoo dóorandoo pour mën a réussir activités yi nga xam ne dañ koy sumb mhm. mu doon lu rafet ñu gis euh, nga euh, ci liñ jot a xam Serif Adaxana yaakaar naa moom doon na tëgg li nga xamante ni mooy ay làmb waaw gëj naa tëgg làmb nag di <laughs> naa tëgg tëgg làmb cest à la lutte c'est passion quoi en réalité tëgguñu ko woon sax pour pour xëy na gis ci dara parce que gis nga événement yi ñu doon def Jurbel euh, jafe woon na pour nga génn si parce que boo jëlee ñaar fukki nag teg ko ci stade Diourbel bi xam nga c'est pas pour pour nga génn si voilà boo jëlee tu mel ne tanoor indi gabar sin jëlee ko dakaar boole leen fii tëgg Cheikh ñan Noiro daal di tëgg seeni noiro la Cheikh Niang Eumeu Sène junior mhm. ak yenn combat yenn combat Paul Maurice Modou Lo institut on a vraiment mhm. essayé par rapport ak promotion lamb mhm. donc euh, par rapport ak passion bi ñuy dund. par rapport ak euh, li nga xam ne waroon nañ ko yokk ci làmb ñu yaakaar ko par rapport expérience bi ñu am au niveau national. je pense que partagé woon nañ ko ak waa Njaareem xawoon naa ci géej tuuti nag mais soriwuma ko woon dama nekkoon di seetaan rek. waaw waaw macha allah nga jóge waat ci loolu defaat beneen acte nga xamante bi macha allah dafa am solo muy social. Euh, te ku wax social wax don de sang ak yeneen ak yeneen yi nga xamante bi def nga ko fii ci gox bi nga xamante bi fi nga fekk baax baax fekk la fi. Eh, mu doon acte ba nga xamante bi macha allah ba pare dooy yemu ci nga defaat beneen acte ba nga xamante bi da nga ne képp kuy mbër eh, man li nga xamante bi mooy sa visite médicale man maa ko res ci année boobu noonu muy daaw mu doon acte ba nga xamante bi macha allah lool nan nga def ba organiser yu mel noonu. waa sentir rek ni que suñu rakk mbër yi dañ si daan daj ay coono ba mu waral sax. ñenn ñi di di di di di di def naka sulul noonu pour am certificat médical te certificat médical en réalité moom mooy moom mooy protéger sportif fi parce que moom mooy wax ni sportif bi apt na pour def sport su fekkee nag kooku nag tegu ko ci yoon xëy na mu indil ko ay jafe-jafe ci carrière am au la sa carrière mun mën na ko indi ay jafe-jafe ci dundam donc ñu ne comme yàlla may nañu ñu mën a jàppale leen ci côté boobu noonu ñu dox ci ay jéego ba vraiment daaw ak ren yépp sax jàppale nañ euh, CRG ci li nga xam ne mooy certificat d'aptitude yi mbër yi war a am maintenant ci social nag moom généralement duñ ci communiquer parce que dañ ne booy jëf di ko filmer di ko wane rek bu boobaa di nga yàq jëf gi wala valeur am di nga ko yàq quoi donc ñun nekk ñu si excès de communication boobu day indi saturation donc dañuy def rek te yàlla tax li nga xam ne nag mooy activité communautaire yi maanaam li jëm ci santé yàlla def na ni on a eu à organiser des consultations gratuites def nañ ay dépistage cancer du col def nañ ay dépistage diabète et HTA def nañ tamit ay dons de sang yu bëree bëri ak ay dons de médicaments on a eu la chance ak suñu partenaire bi nga xam ne notre partenaire de tous les temps Tampico ak Catalina équipé ay postes de santé ak ay centres de santé loolu je pense que lu lu lu lu jar a souligner la defuñu ko sax pour wane wu mais dañ ko jox pour joxe ko en exemple ñeneen ñi nga xam ne tamit am nañ ay contacts ñoom ñu mën a dellu si Diourbel lépp lu ñu fi mën ci def ci ay actions ñu def ko mais lépp leneen lu def comme action sociale on a jugé vraiment nécessaire de ne pas filmer ça je pense que loolu mooy suñu code de conduite on ne filme pas on ne prend pas des photos de def li def après euh, je pense que le lañ ci y a ci xaar quoi. mais il y ci le mais mu mais nous am solo parce que tamit Serif man du ma d' accord que yow ci foofu parce que euh, li tax ma ne du ma accord ci parce que nit bu fekkee ne da ngay def lu baax yow miy def lu baax euh, filmer ko.

on n'était pas forcément les meilleurs suñu carrière yëpp yàlla moo choisir ne xëy na kii dina am benn leadership bu mën a impulser benn démarche boo xam ne mën na demale dimbale nit loolu nag ça te donne pas le droit ngay filmer nit ñi wala di leen photo di ko dugal si internet yi wala réseaux sociaux yi waxuma ak ñi koy def defuñu lu baax de man dama ne personnellement loolu mooy sama philosophie vraiment bu ñuy def action sociale ñi ko soxla ñun gënuñu leen xëy na suba mën nañu nekk seen place te bu ñu nekkoon seen place bu ñuy ñaan yàlla kenn filmer wuñu wala kenn photo ñu moo tax li ñu def yëpp ci koor geek ci tabaski beeg ci yeneen ak yeneen on ne filme pas et puis duñu duñu ko duñu ko partagé quoi mais yàlla moom borom bët bu rëy bi je pense que xam na waaw waaw mais est ce que organisé yu mel noonu ak fi Jurbel tool nii est ce que yomb na. mais gars yi ci jàpp rek xam nga yen li mu diis diis bu wagg yi bari rek mu oyof te gars yaa ngi nii hmm. seen xaalis lañ ciy def seen jot lañ ciy def xoolal. kii dafa jóge vacances Brésil ko neexoon mu tëdd si wetu jabaram xoolal kii tay la ñëw dafa liggéey demu wàcc mm-hmm. sëñ Mbacke dafa tëj place am maasee mm-hmm. ngi nii ay chantier jàmbur la yor te gars yi ngi ne gis nga leen ah. gars yi ngi ne si terrain bi ñoom Aliou Baye Fall tëj ah, seen atelier yi ñëw di dagg pofton yi di defar terrain bi mais xam nga ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu en réalité ñoo tax may xaru di rey sama bopp parce qu'en réalité mm-hmm. su leen neexoon ñu choisir ñi nga xamné ne am nañ ay ndomba tank ni ko waxé am nañ am nañ am nañ loo xam ne tey jii nañ joxe ay poste wala joxe ay responsabilité hmm. man yalla def na mënuma ma joxe benn poste mënuma hmm. ma joxe benn responsabilité mais buma ma jeunesse bi jóg macha allah dañuy dem sa banane ay xalé ko top hmm. mais xalé yoy ñuy avenir lu suba te ñooñu ñuy wax xalé en réalité en terme de prise de risque en terme d'innovation mais ñoo yor mbir mi ah politique xalé mon cher politique xalé mon cher donc noonu la demee noonu la demee waaw. mu mel ni Serif ba tey yaa ngi organiser la nga xamante bi te suba la. Euh, ñëpp di ko waajal muy samedi di tombe ak le huit allah rab rabi. Mhm. fii ci nga xamante bi mooy ci école xaaxam. Mhm. ñu gën ko xam ci terrain jaaji. mu doon euh, tournoi ba nga xamante bi est-ce que mën nga ma cee ñëwal ak euh, li nga teg ci trophée bi. <laughs> Mor est-ce que loolu duñ ko dëxëñ nag. ah non en tout tournoi bi moom. Ndiol ngay bi moom Ndiol bi mooy moom may jaawale rek. non Mor moo tax quoi xam naa ni maar ñii quoi. <laughs> mais <laughs> tournoi bi moom. dafa bëri lu si dëxëñu. Hmm. gëjoon naa si làmbu Jurbel. waaw nit ñi namoon nañ làmbu Chérif Atkhana Jurbel. Hmm. loolu benn point la benen point bi le mouvement dañ koy def gëj nañ def mouvement de xamné day am mobilisation mm-hmm. ñu doon def rek généralement ay activité sociale formation dépistage volontaire mm-hmm. activité de communication quoi d'une manière générale mm-hmm. maintenant bu ñu ñëwé tay nous ñu né dañuy dellusiwaat sur le terrain joindre l'utile à l'agréable xam nga utile mooy dañuy dajale jeunes yi waxtaan ak ñoom am message bu ñu délivrer moo tax ku comprendre. Tu tubaab day wax ne que l'idée devient une force dès qu'elle s'empare les masse. c'est-à-dire que xalaat boo ko amee sa biir bopp du am njëriñ tant que génne woo ko partagé ko boo ko partagé benn nit ak ñaari nit njëriñ gi dana néew mais boo dajee xale yëpp à travers benn plateforme bu ñuy def loolu je pense que dina mën a permettre ngeen mën a communiquer ñu jàpp solo si après ñoom ñu nekk ay relais message boobu ñu yóbbu ko dans leur quartier pour ñu am ay leader leader au niveau local parce que leadership de la jeunesse je pense que loolu rek moo mën a développer réew parce que làmb ji ñi ngi si ñi ngi si jublu si ñaari ponk yooyu ma la wax mhm. nit ñi namoon nañ ma si làmb dinaa del si mhm. dañ koy def gëj na ñu yëngu te dañ koy def deret du xale lañ yor bu ñu yëngoo rek réew mu yëngu dinañ yëngu mhm. beneen aspect bi mooy damay dalal koo xam ne sama nit sama xarit la sama frère la muy aw muy doomu aw Maricol di Matar di koo xam ne sama xarit la vraiment nekk secrétaire général u RDC ñu nekkandoo woon Comeva depuis 2012 di ki liggéey liggéey bu am solo moom tamit mi ngi doog a ñëw Diourbel mhm. loolu tamit xam nga bës la mhm. voilà loolu waaw loolu bës la mhm. bu bu ko defee tamit suñu sœur Catalina bu Tampico yaa gën a ñu liggéey yi ma doon def émission télé yi ma doon def que 2S que Sen TV que RTS sax bi ñu defee woon d'Or yëpp daf si jàpp maam soxna musuñu def bés tegu ci loxo donc kooku nag soxla nañu sargal ko donc moom it dañ koy sargal ci bës bi mhm. waaye ñëpp ñëw je pense que man gan yi ma wax dañuy ñëw yëpp damay jaaxal sax fan lañ leen di dalal loolu nag yéene la ni ñuy ñëw yéene teew ci bës bi jëmmal ko mhm. ñu ñaan yàlla may ñu yeggale parce que wax mu neex yàlla rek la neex mhm. je pense que dañuy ñaan nag yàlla may ñu ñu tàmbale ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin mu tàng te sedd. tàng mooy animation bi na neex. mbëri na yëngu. Mm. waaye mu sedd xew ci jàmm kenn bañ fee xoosu. noonu daal lañ koy ñaanee yàlla na tàng te sedd. tàng jër te sedd guy noonu daal lañ ko bëggee waaw waaw waaw. damay yemagum foofu ñëw ci ki nga xamante bi mooy Dibakor euh, Faye mu doon sama doom baay mais rafet euh, mbaxane trop rafet si kim Dibakor ñu ngi lay nuyu baax a baax di lay ziar. waa Ndiol ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di nuyu waa Njaareem di nuyu spectateur spectateurs yi di nuyu mbokk internet yi di leen dalal fii ci champ de course di wax dal leen ak jàmm waaw. Oh, li nga xamante ni mooy parti bi ban ban ban ban position nga ci taxaw. waa si mouvement bi man maay man maay seen coordinateur bi waaw man maay coordinateur bi waaw man maay coordinateur bi. lan moo tax ngeen bàyyi fi lépp jël li nga xamante ni mooy làmb pour organiser ko suba. wa xam nga <laughs> de de day sax tey man si facebook bi maa gis benn gars mu ñu siy tooñ mhm. mais c'est-à-dire xam nga comme ñun mhm. euh, dañuy ànd ak ñu bëri ñu ngi ànd ak élèves yi mhm. ñu ngi ànd ak euh, ingénieurs yi ñu ngi ànd ak maanaam ñun dañuy laal couche yëpp donc comme comme di ko Chérif waxee ñun dañuy bëri ay activités yu ñuy def on est dans le social dañuy on est dans la santé donc sport bi tamit dafa bokk si ñun donc bu ñu ñi dañuy defal ñee yéen da ngeen a mos da ngeen a xam ne laamu mooy suñu culture quoi voilà loolu tamit bokk na si loolu tamit bokk na si quoi mm. te comme ni ma ko waxee rek ah. ñoom mbër aussi dañuy nekk suñu biir saf trop nag si mouvement bi mm-hmm. parce que fa ñu gëstoo mm-hmm. gis leen fu ñu taxaw ñu ñëw taxaw mm-hmm. donc tey jii nii bu ñu lu mel nii jagleel leen ko man je pense que Euh, ba léegi rek si si biir kii bi la bokk quoi voilà donc dafa nekk loo xamante ni mënul woon a ñàkk. man dégg naa benn mbër ba waxee mu ne nan leen jàppale Serif Atxaana dafa bëgg Jurbel waaw nan leen ko jàppale non mën naa jaar ci turam sax mooy xale bi ñuy wax Hercule. waaw dëgg la. Mm-hmm. dëgg la dëgg la Serif nag ak mbëri loolu histoire bu yàgg la. waaw histoire bu yàgg la. vraiment dañoo am ay jaar-jaar. Mm-hmm. voilà donc tey jii Euh, te du moom kese de moom nga cité mais du moom kese tey jii nii yaakaar naa bëri na ay mbëri Jurbel fii nii boo leen waxee Cherif voilà bu ñu taxawee bu ñu waxee si Cherif rek da naan noo xam na dañuy exagéré mais loolu dafa nekk loo ne dañ koo dund donc loolu tey jii nii taxawaay boobu ñu am rek loolu loolu ñu war a taxaw parce que Cherif am na fu mu jaar ak ñoom mm. ñoom tamit côté boobu rek lañ ko mën a jàppale donc Cherif lu mu la xaw fu mu leen woo ñu ñëw wuyu ko donc euh, voilà loolu la rek. Ah. mais Dibkor mu mel ne yow yaay seen coordinateur mais ba léegi euh, mën naa xam ci li nga xamante ni mooy trophée bi ngeen teg suba pour euh, pour pour tournoi bi. waa trophée bi je pense que mise bi quatre cent quatre cent mille la. quatre cent mille francs bari na de mbaa du ma summeeku. <laughs> ah non non kii. waaw ah, bëri na bëriwul xeeb nañ ko <laughs> non non non bàyyil bàyyil yi rek bàyyil gars yi mais nag attention dañ koy def am nañ mbër de hmm? dañ ko nëbb waxaguñ ko ah? Ah, dañ koy def am nañ mbër est-ce que du maay seen mbër a <laughs> waaw ba dee mën parce que yow tamit sa biir nga bokk waaw waaw mais da koy da koy bàyyi gars rek yow moom garaawul quoi waaw mu mel ni mu mel ni organise li nga xamante ni tamit mooy mooy tournoi bi yombul fi mu toll nii ak yi ñu ci wax yëpp ne da ci war a am est-ce que ñu ngi xaar yi nga xamante ni aussi tamit mooy culture bi. waa xam naa nag euh, suba. comme ni ko Serigne waxee rek am na ay surprise yu bëri yu si nekk. donc du ñu dugg dans les détails mais <laughs> voilà dañuy xaar gars yi bu ñu ñëwee rek. vraiment xam naa ku fi ñëw moom doo ko réccu. waaw doo ko réccu vraiment bëri na ay surprise dinañ laal côté yu bëree bëri bëri dinañ làmb dinañ neex dinañ culture vraiment dinañ bëgg liñ waaw dara du manqué incha allah ñuy woo ñëpp daal kenn ko xamante ne tey am nga jot bi nga yegg si ñu ngi lay woo. macha allah vraiment. jërëjëf kon euh, duñ def rek lu dul jox ki nga xamante bi mooy Cherif Atkhana muy mu joxe kàddu bu mujj bi muy kàddu tàggatoo bi euh, woote waale woo waa Diourbel ñi nga xamante bi wax dëgg yàlla fi la fekk baax baax fekk ko fi mu fi liggéey liggéey bu am solo Cherif Atkhana euh, kàddu gu mujj bi. waa njool nga may ma rek. ñu ñu ñamal ci Antoine Bakhoum mais moom maa koy. maa koy maa koy maa présenté. Ah, <laughs> xam nga le retour de Antoine Bakhoum. non du bëre ci mais dina yëngal ni ni mu defoon jaamalaay samp béjjén bi mënul ñàkk xam nga c'est un ami c'est un frère boo xam ne ah. on a vraiment pas passé ay moments yu yu yu magnifique donc su ko neexoon tey mu ñëw ton këram mais euh, mi ngi fi quoi gan yi sax partenaire bi gan yi këram lañ dal donc loolu rek lu lu lu lu am am solo la mook sëñ Mbacke kamu yëpp mais Antoine ñu jox rek mu woo champion yëpp comme moom non kii bàyyagul gisoo ko xanaa véroo ko xaw a tee rek. waaw <laughs> ah, asalaamaaleykum téléspectateurs yi ak euh, amateur yi euh, sama mbokku mbër yi maa leen di nuyu yéen ñëpp ah, di nuyu ñifi fi toog nii muy sama grand shérif ak njool ak euh, Dibakor ak Cheikh mais maam Cheikh di nuyu champion bi le grand maçon waaw ah, maa leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu jeetaay bi parce que xëy na shérif moom. dafa nekk nit koo xamante ne rek dafa nekk kenn si ñun. Mm-hmm. kaa sax moom li mu wax rek wax na lépp terminé na lépp waaye xam na moom day yéene lay doxee quoi te vraiment xam nañ fu mu toll ci ñun. kon bésam nii rek lañ ci mën a def daal parce que dañu war a bàyyi suñu yite ñëw jëmal ko ma ci woo sama mbëkk mbër yëpp nag euh, képp koo xamante ne bëgg ngaa gis làmb ju neex rek. Mm-hmm. Euh, suba bul tardé teelal ñëw ku war a bëre ñëw teelal ñëw ñëw bindu. xam nga bu ko defee ñu jëmal bés bi parce que sëriñ mi dafa ne grand boo xamante comme li sànq li njool wax rek euh, Hercule naan nañ ko jàppale mm. kii dafa jar a jàppale parce que dafa nekk xele boo dafa dafa bëgg Jurbel te lépp lu mu am rek waa Jurbel la ko yéene kon ñun ñi fi dëkk ñun ñoo ko war a jàppale parce que dama cee xam lu bari Chérif xëy na waa Jurbel sax niñ ko war a xamee xamewuñ ko noonu waa Dakar ñoo ko gën a xam parce que dama fi nekkandoog moom dakaar ñu dund comme li mu wax rek maman yoo xamante ne vraiment mënatuma ko fàtte quoi Ah, di ko ñaanal rek ñaata drapeau la. ah eh, ñaari drapo lañ koy def nag mais bëggoon nañ mu ëpp noonu sax mais gars yi dañoo ne instant bi foofu ñu yemale ko pour mu bañ a guddee bu ko defee kilifa yi mun a yeeweeku waa gaan yi jóge fu sori comme dañu am ñoo xam ne dañu jóge ba Dakar ñëw fii te suñuy nawle lañ te ñoom itam xam nga vraiment bu ñëwee bëgguñ ñu guddee ne guddee yi xam nga ñibbiwaay bi nekk problème quoi parce que dimanche bi dañuy am il fallait ñu télé ak bu reposé wu mëna xëy lendi bi liggéey quoi waaw waaw mais maa ngi kontaan bu baax nag ci émission bi di len ñaanal rek jàmm di ñaanal Serif li mu mébét ni yalla na ci yalla nako ci yàlla defal ndam ah di di wax champion yi ne bu kenn dess te wa Jurbel tamit tam nañ def masse ñom bu suba inshallah ñep ñëpp génn ñëw waa teel génn ñëw def génn en masse ñëw mobiliser jàpp jëmal bés bi dal parce que day am ay nawlem yo xam dañ ko fi fexi te kii dafa nekk doom joo xamante ni dafa jara a tiitaroo parce que ñi ko soxla bari nañ dakaar moom bu ñu sañoon Cherif di ñëw Diourbel man xam naa ci dara instant bi yàgg nañ di def foofu ay événement yoo xamante ne vraiment ñëpp dañ ci apprécier kon nag bu ñu nee man Jurbel laa juddoo fa laa dëkk lépp lu mu am waa Jurbel laa ko yéene kon ñu nit wuñu waa Jurbel bu mu ñu gën a gore quoi nañ jóg app épaulé ko jàppale ko ci ba mu am ci réussite quoi waaw Njool maa lay jaajëfal nag waa ba incha allah képp ku na xam namoon na <laughs> Bako Antoine Bakhoum incha allah rabbi bu subaa di ko fi am waa dinaa dinaa yëngal xam nga ne moom borom ndënd yi moom xam nga waa Jurbel kenn naatable du ne man maay borom ndënd yi quoi mais incha allah dinaa yëngal bu baax bu ngeen kontaan ah jaajëf waay jaajëf kon mais merci beaucoup Antoine. mais kamu lamba ji entrée libre la. salaamaaleykum. waaw maa ngi nuyu gars yi fi teew nii yëpp kenn ku ci di nuyu kenn ku ci ne sa tur ak sa sant rek waaw di amaan mbégte comme ni ko gars yi waxee rek waaw sërif moom sërifu ñëpp la parce que mun naa ne gis nañ daal jëf ju rafet ji muy jëf Jurbel te boolewu ci dara njustal wan lu dul ñu def lu dul maanaam ñaanal ko yàlla suñu borom rek fi mu bëgg a yóbbu maanaam Jurbel yàlla suñu boom jàppale ko gudd fan ak wër ba képp lu ñu yaakaar ci moom rek yàlla suñu boom defal ko ko. waaw di woo ñëpp nag suba làmb ji gratuite la waa di wax ñëpp nañ teel a génn waa lépp dina fi am ambiance ak lépp waa ñu teel a génn seedaan mbër xam nga bëri daal mënuma dama mënul wax nag. waaye di wax kontaan naa nag kontaan naa ci affaire bi torop torop torop di sant gars yi yëpp daal waaw di wax gars nañ teel a génn incha allah bëgg naa torop. waaw di jàllale tuuti rek ngeen baal ma parce que li mu def nii nag foo ñu wax ko njool parce que buñ ko waxoo dem dañuy gor quoi lamb ju toll nii nga tëgg ko fi ba pare def euh, gratuitement amul dagg bi amul dara waaw lu yomb ñëw loolu kon firndeer na. am solo waaw ah, teg trophée bu am solo. waaw ah, xam nga loolu yombul quoi. vraiment waaw ah, tey ñu ngi woon fii ci fi nga xamante ni mooy Aslem Diadji ci terrain bi nga xamante ni mooy terrain Diadji euh, en même temps waaye di ñëw fi nga xamante mooy école xaaxam seet woon fi ki nga xamante ni kenn la ci ñun euh, mooy borom mouvement dañ koy def mooy Serif Atxaana ak euh, équipe bi mu àndal. cant ak ñeen na la di wax rek ne site baa ngi noonu di Global TV di Diourbel 24 abonné leen cant ak ngërëm ñeen na leen ah. kon suba incha allah rabi dina ñëwaat fii ci terrain bi daal di wan leen li nga xamante mooy làmb ji fi am incha allah cant ak ngërëm nee na bàyyi maam Cheikh Moundaw jaajëf